mbokki internetu Casa TV gis ngeen tey jaamaarloo bu bëri bu bëri bi nga xam ne am na fi diggante jeune Pastef fi ak euh, force de l'ordre yi metti na trop tàng na jir lacrymogène yaa ngi noonu gis ngeen ñu ngi koy sandi sandi nañu ay lacrymogène xale yaa ngi loolu jamono ji fu mu ne ni fii tàng na jër tàng na jër dégg ngeen loolu ay xalé yu ndaw ñoo fi di jaamaarloo eh bi metti na Jangan lupa beda doka aja. Sangko, sang, ay xale yu ndaw ay xale yu ndaw nekk fi di jaamaar lacrymogène yaa ngi Sonko Sonko gis ngeen xale bu ndaw di jégalu nak ci qualité image yi ndax euh, dañuy dakanté rek ak euh, mbir yi di moytuwaale xeer yeeg lacrymogène yi yéen a ngi direct ci Casa TV lacrymogène yi safna na di len wax ni ñu ngi fi ci bi ñona station Total diggante ndawi Pastef fi ak force de l'ordre di creo que no mi entero. ndiya ndiya mini ko ndiya minni di jégalu nag lacrymogène yi moo tax gis ngeen loolu gaa ngi jaamaarloo mais na ma jox benn butéel kiraan waaye tijil moko tijil tijjil amul bu sedd tijil moko tijil moko gis ngeen militaire yango ñomit ñew nañu bokku ci mbir mi militaire yango ak jeunes di calmer di jema calmer jeunes yi gis ngeen jeunes yi ñu ngi yuuxu sonko sonko di wax ni rek lacrymogène yi takkarnaase na fii ci diwaanu Bignona jeunes yi engagé wu gis ngeen jaamaarloo bi voilà lii yëpp ci Bignona la xewee station Total militaire yaa ngi noonu di calmer waaye jeunes dafa mel ni bëgg ñu dégg loolu militaire yaa ngi ni di leen calmer lacrymogène yi lacrymogène yaa ngi takkar naa c'est lakkatu tuuti xeela ka tuuti lacrymogène yi gis ngeen militaire yi ñëw nañu di jéem a calmer jeune yi waaye dafa mel ni jeunes yi dañoo engagé wu jeune yi accaparé wu nañu ci accaparé nañu kii bi stop bi daanaka repousser nañu force de l'ordre yi Euh, militaires yi def nañ lu ne di jéem a calmer jeunes yi gis ngeen loolu militaires yaa ngi noonu di wax ak jeunes yi waaye jeunes yi ñu dégg dara nanguñu dégg dara ñu ngi noonu di wax ak militaires yi. mbokki internetu Casa TV lii de moo xew tey ci diwaanu Bignona. moo xew ci diwaanu bi ñoo na di leen wax ni rek mën ngeen ànd ak Casa TV partagé leen vidéo yi mu dem fépp ñu xam li xew bi ñoo na euh, gis ngeen gis ngeen image bu rafet boobu nga xam ne militaire yi ànd nañ ko ak jeunes yi pour calmer leen ndax dem nañu ba jeunes yi ëpp ëpp gars yi doole gis ngeen militaire yaa ngi leen di calmer noonu ñu ngi leen di calmer. militaire yaa ngi calme jeunes yi. gis ngeen ni ko demee gis ngeen. ñu ngi calme jeunes gis ngeen force de l'ordre ñu ngi noon ñi manifester euh, euh, ne ni moom yëf yi tàng na jir di ñaan yàlla rek yàlla na yàlla def jàmm. yàlla na yàlla def jàmm yàlla na yàlla def jàmm yàlla na yàlla def jàmm yàlla na yàlla def jàmm gis ngeen oto yi mënuñ sax dem dikk. yalla yalla def jam ndax jàmm gën ay jàmm gën ay euh, di len wax ni rek euh, violence fajul dara waxtan jema djubo jema trouver consensus mo gën lepp lu ngeen gis sama camera bi ko voilà jàmm gën ay marche passive la def waaye bi ñu xëyee dañoo génne élèves yi ci seen classe yi ne leen nañ ñëw génn ñoom it moo tax it nga gis ni ay jeunes rek nga fiy gis ay xale ay élèves ñoo fi nekk di taali pëna di jaamaarloog force de l'ordre yi euh, station Total bi ngay gis nii dañ koo tasar dañ koo tas toj ko toj ko yàq lépp kon daal mu ngi noonu xeer yaangi ngi noonu di jolli jeunes yaangi noonu wane nakar lacrymogène baa ngi noonu lacrymogène baa ngi noonu gis ngeen je suis obligé ma daw mën a nekk à l'écart ndax gis ngeen lakk loolu ngeen di gis noonu ay lacrymogène la yu nga xamné sandi nañ ko gis ngeen tassara nañ ko lacrymogène yépp lañ tassara est-ce bañu non tay mom mbiri dafa tang jir mbiri tang na jir mu ngi noonu bi ngeen di seen noonu lacrymogène yaa ngi noonu mënatuma jege ndax lacrymogène yu bari bëri mënatuma jege ndax xeer yu bëri partagé leen ko rek ñu xam ne tey bi ñoo ne lii moo fi xëyee lii fi ñàkk di jéggalu ci image yi ndax fu mu ne ni dama naan lacrymogène ba deer ñooy wax ni militaires yi calmé nañ ba sonu jeunes yi nanguñu motax dem nañu bayyi jeunes yi ak gendarme ñu ngi noonu jaamaarloo di wax ni rek euh, gis ngeen force de l'ordre yaa ngi noonu ñu ngi noonu di xaañante ñoom force de l'ordre yaa ngi noonu gis ngeen ko gis ngeen ko di lay wax ni ñu ngi diwaanu Bignona fii ci bi biir bi ñoo ne fiefu Ousmane Sonko ñu ngi noonu jaamarloo yàq lépp taal ay pëna yàq station bi euh, yàq tali bi mu ngi noonu jeunes yi dañoo engagé wu tey fas yéene gis ne militaire yi ñuy jéem calmer waye jeunes yi nanguwuñu militaire yaa ngi leen di calmer waye nanguñu nanguñu dégg li dal mo xew tay ci diwanu biñona <coughs> di jégalu nak ndax fu ne ni bo nekké ci bir mbiri lacrymogène yak xeer yépp Eh, da lay dal kon mu ngi noonu lépp a taxaw diwaanu bi ñoo na benn activité amatul bu dul violence yi ngeen di gis nii eh, bien public yi nga xam ne ñu ngi koy yàq eh, rafetul ci suñu réew di wax ne ngeen partager vidéo yi di wax ne ngeen partager vidéo yi. bàyyil di saaga dama nekk ci direct bàyyil di saaga di saaga waaw man ngay laaj ànd sama kàddu may ñu wax suñu droit bu may ñu wax suñu droit nga déglu ko bu baax. waaw man maa ko daan may bi filmé ñu wax suñu droit wala doo filmé filmé ñu wax suñu droit dañuy filmé dañuy filmé dañuy filmé wala ñu saaga du ñu saaga waaw waaw Sonko Sonko mo leen wala Macky Sall da leen bëgg a boolaaw ñun bu leen nangu Macky du caaxaan neex xam nga lan mooy wax filmé ñu filmé ñu filmé ñu rek gis ngeen jeunes yi a ngi noonu yéen a ngi direct yéen a direct gis ngeen gis ngeen loolu gis ngeen loolu gis ngeen ñu ngi nii côte à côte ak ak de l'ordre gis ngeen ñuy ni côte à côte ak force de l'ordre yi jeunes yi dañoo encercler force de l'ordre yi fu ne la ñuy fële fu ne jeunes yi fu ne la ñuy fële ngir mën a jaamarloog euh, force de l'ordre yi gis ngeen force de l'ordre yaa ngi ñu ngi noonu oto baa ngi noonu di dem oto baa ngi di len wax ni di ngeen am intégralité bi ci suñu chaîne youtube Casa TV Bignona di wax ñepp nañu dem abonné ci Casa TV Bignona euh, image yi nga xamné di nañ ko fa amal ta mbokk yi li takarnaase na gis ngeen légui mom jël nañu asso jël nañu jël nañu asso force de l'ordre yi fu mu ne ni force de l'ordre mëna ñu def dara ndax jël nañu asso dinañ assaut force de l'ordre yi gis ngeen lolu jël nañ asso for de l'ordre ah mbokki yi ne ni metti na trop ndax fu mu ne nii force de l'ordre yi bëri wuñu te jeunes yi c'est des c'est des centaines c'est des centaines de milliers de jeunes yoo xam ne ñoo ñëw tey engagé wu di jaamaarloo ak force de l'ordre yi euh, mu ngi noonu dafa mel ni ah mbir yaa ngi met takkarnaase fu ne la xeer yi di jógee mbokk yi maa ngi doon wax ni na ngeen dem abone ci chaîne YouTube bi Casa TV bi Bignona ngeen mën a am déclaration Euh, ñi nga xam ne ñoo jiite Pastef fii ci euh bu ci kanamee touti dañ ko fa duggal déclaration bi ci di coordinateur départemental bi gis ngeen lacrymogène yi gis ngeen donc li wax ni rek euh, lepp lo xamné xewna fi ci biñono di ngeen ko gis à travers Casa TV votre chaîne de proximité ya nga wax force de l'ordre du ngi nonu euh wu ndax jeunes yi jeunes yi dañ leen encercler ba mënatuñu def dara lulul taxaw tam rek di gis ay xeer yi ñew gis ngeen lool gis ngeen lool gis ngeen ko ñu ngi noonu gis ngeen loolu ni lii dara jaru ko euh, Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar donc ñun ñoo war a bokk ndey bokk baay euh, mu ngi noonu daal ay jeunes yoo xam ne dañoo révolutionné wu. ne dañ fiy jëlee injustice mu ngi noonu waaw jeunes yaa ngi noonu jeunes yaa ngi lii il faut que ça cesse parce que eh, yaa ngi nii di xeex jeunes yaa ngi xeex gis ngeen ko. Sénégal xeex. ñu ngeen ko. gis ngeen yaa ngi noonu. Euh, ñii wax naa dugg ci jeunes yi pour ma mën leen a woon jeunes yi. c'est dañoo nekk groupe yoo xam ne xeer yi fu ne lay jógee ndax force de l'ordre yi tamit dañuy sandi ay xeer ak ay lacrymogène ci biir jeunes yi donc c'est pas c'est pas prudent pour mu mën dem dugg ci biir jeunes yi mën a jaamaarloo mën won image yi donc mu ngi noonu gis ngeen ko ngeen ko amatuñu doole force dollar di yi amatuñu doole ndax xeer yaa ngi jóge fu ne xeer yaa ngi jóge fu ne di ñëw gis ngeen jeunes yi c'est pas si su ma zoomé qualité image yi dina baax mais jeunes yaa ngi nii jeunes yaa ngi ni jël nañu asoo jël nañu asoo auto sapeur yi xaw lu xew foofu jël nañu asoo auto sapeur waaye gis naa ni ñu ngi naan nañu bàyyi sapeur yi ñu ja ñu dem ndax xëy na ñoom duñ ci lenn ñoom dañoo ñëw juste secourir les blessés dinañ wax ni ci côté force de l'ordre yi am nañu ay quelques blessés kon yaangi ni dakante ak ñom gis ngeen gis ngeen lolu gis ngeen gis ngeen lolu gis ngeen lolu gis ngeen gis ngeen gis ngeen gis ngeen lolu gis ngeen lolu gis ngeen loolu mbokk yi gis ngeen loolu tey li xew bi ñoo na mësta am mësta am biir bi ñoo na jeunes yi dàq nañ leen xoolal xoolal lañ def station bi lii rafetul mbokk yi ñu ngi noonu di sandi ay xeer ci ay station lii rafetul mbokk yi lii rafetul lii rafetul mbokk yi lii rafetul militaire yi nga xamne ñoo ñew pour calmer lan mu jigi ñom lañuy sandi sànni xeer mbokk yi rafetul militaire ngi di armew li rafetul mbokk yi gis ngeen lool di gis ay commentaire ni bu ma wane seen kanam waaw dégg naa leen ci loolu waaye daf fekk ni am na ñoo xam ne dañuy ñëw taxaw sama kanamu caméra pour rek ma jël ko gis ngeen jeunes yi ni ñu jëlee assaut station Total bi euh, damay ragal station bi ñu ñu yàkkati ko ñu ngi noonu jël assaut station Total bi mbokk yi nekk bi ñoo ne li xew bi ñoo ne ñaaw na ñu ngi dugg pour piller. ñu ngi pillé station bi mbokk yi lii ñaaw na jël nañu assaut station Total bi jël nañu assaut station Total bi jël nañ militaire yi ñëw nañu kii bi ko ay xale yu tuuti lañ fa fekk. gis ngeen gis ngeen mbokk yi mbokk yi li xew bi ñoo na ñaaw na ndax xam naa ne militaire yaa ngi tiire bal réel militaire yaa ngi tiire bal réel gis ngeen loolu ndax calmé nañu jeunes yi ba sonn nanguñu calmé wu militaire yaa ngi tiire mbokk yi lii ñaaw lii ñaaw na pillé nañu station Total bi lépp lañ pillé yàq ko mbokk yi militaire yaa ngi calmer jeunes yi waaye jeunes yi nanguwuñu di wax ni partagé leen li nekk di xew bi ñoo na mësta am mësul am militaire dañoo ñëw juste pour calmer ginnaaw ba takk der yi euh, gendarme yi demee dañoo ñëw juste pour calmer les jeunes ne leen nañ baay li ñuy def euh, metti na torop nag waaye il faut ñu nangu déggal tamit ñi nga xam ne jox nañ leen cër ba ne lan nañu bàyyi donc gisoo ñu ngi noonu militaire yaa ngi noonu ne lan nañ nañ nañu bàyyi di leen ñaan pour ñu bàyyi. maa ngi dégg seen i dinaan mairie mairie mairie ah loolu. gis ngeen am na benn partisan Sonko bu ñëw ak oto mbokk yi bi ñu ne tàng na tey jir di wax ni bi ñu ne tàng na tey. ma xool ndax dinaa mën a dem ci côté station bi gis na li mbokk yi la xew station Total ñaaw na la xew station Total ñaaw na la xew station Total ñaaw na la xew station Total ñaaw na la xew station Total ñaaw na mbokk yi gis ngeen loolu gis ngeen gis ngeen militaire yaa ngi nii mu ngi koy calmer mu ngi leen di calmer mu ngi leen di calmer mu ngi leen di calmer militaire baa ngi leen di calmer mu ngi calmer jeunes yi mu ngi calmer yi. calmer jeunes yi bi ñëw na gis ngeen loolu mbokk yi amul fenn kenn mësu koo gis kenn mësu koo gis fii ci diwaanu Bignona rawatina station Total gis ngeen mbokk yi bain de foule bi ngeen di gis nii ñoom ñëpp taxaw temm pare jàkk jàmmarloog mbokk lo gis ngeen ko gis seni seni akapare yi accaparé wu nañu ci lieu yëpp lépp lañu akapare wu jël nañ ko yëpp gendarme dam nañu daw nañu yamu tak de la carte lakkati tuuti kay Thank you. mbokk yi gis ngeen jeunes yi récupéré nañu stock bi yëpp récupéré nañu stock bi yëpp ñu ngi noonu gendarme mi daw nañu dem nañu fu mu ne nii militaire rek ñoo fi des ak jeunes yi militaire ñoo fi des ak jeunes yi jeunes yi bëgg station bi mu ngi noonu gis ngeen ko département bi ñoo ne yëpp a génn ndax tey même les villages les plus reculés ñëw nañu bokk ci xeex bi gis ngeen ko nu ñu nekk di yàqee station bi tas nañ ko tas nañ ko tas nañ ko mbokk ah mbokki Jeni de xamna ni nenañu ginaaw station mairie ragal nañu dem mairie mais nak la mairie c'est un bien public ko xamne ñun ñepp ko mom suñu kayitu judd yaangi fa suñu papier yaa ngi fa ngalawaay bu ko ken yak ndax boko yaké du maire bi nga yakal waye askan bi nga yakal donc buñu dem mairie image yaa ngi noonu vous êtes en direct de sur Casa TV Bignona notre page Facebook di leen wax ni gis ngeen militaires yi ñu ngi may ay orange sax may jeunes yi ay orange pour calmer leen mbokk yi lii rafet na jàmm gën ay gis ngeen loolu jàmm gën ay jàmm gën ay gis ngeen ko jàmm gën ay. jàmm gën ay mbokk yi Sonko jàmm gën ay mbokk yi ñu ngi noonu jeunes yaa ngi noonu jeunes yaa ngi noonu neen jeunes yaa ngi noonu di yàq di yàkkati station bi gis ngeen ko jeunes yaa ngi noonu di yàkkati station bi ndax jàpp nañ ni bi tubaab yee ko moom. metti na torop metti na torop metti na torop li xew bi ñono metti na torop jaxan jaxan yem xala ban li xew bi ñono metti na torop mbokk yi di len wax ni ngeen dem abonné ci Kaza TV bi ñono suñu chaîne YouTube bi dinañ fa duggal li di déclaration pasté fi di nañ ko fa google, waaw di wax rek ngeen abonné activer bu len faté activer cloche de notification bi ndax amna yo xamné di nañ ko fa gëna a yaatal gis ngeen jeunes yi gis ngeen ñaan ñu dugg tuuti tàngoor yi gis ngeen ko dem beeg dik bi amatul tàngoor yi bi ñu na taxaw na gis ngeen amul yoon gis ngeen dekk bi fu mu ne nii tàng na jër mbokk yi dekk bi tàng na jër dekk bi tàng na jër dekk bi tàng na jër. gis ngeen ko station Total pillée. ngeen ko gis ngeen ko Gracias. gis ngeen am na ay jeunes yoo xam ne ñu ngi calmer seen moromu jeunes yi. du jamais vu à Bignona façon grève bu nekk jaar na fi waaye bii moom. boo gis. falum ku njolok ku jamatak jana ro baje biñona di jegal nak sama jola setul non ku ro baje biñona marsiano manya yati riposte wan wan kuragum wo ka kane na muy kok en direct biñona stop station total tu ku kañane ku gendarme ku tete ku jaw ko male bot Thank <laughs> you.

jeunes yi foofu lañ dem ñee nan dañuy dem gendarmerie ñee nan naan ñu ngi dem mairie donc lu ci mën a am euh, dinañu ñëwaat ak yeen ci lepp lu xew fi ci diwanu bi ñono ñu ngi leen di bayyi ba ci kanam saya ingin... <laughs> Pardon.